ki mom bokoy def day gaaw te gàtt waaye ay farataam daa bari boo koy def da ngay jekki-jekki ne tegg sa yaari loxo ca la ngay tiime muy suuf muy leneen yéene joox faratay tiim ba mbaa mbaa nga ne yéene dagan loo julli mbaa lu tax ngay tiim daal di njëkk raay sa kanam ba mu daj del tegaat say loxo ca la ngay tiime daal di raay sa loxo ndey joor jaabaraay sa loxo càmmoñ loolu rek mooy nit ñuy tiimee ay farataam nag moo bari mu ne juróom ñett lañu bi ci jëkk mooy yéene yéene ji mooy ni ñu ko waxee léegi boo ne tegg sa yaari loxo ci la ngay tiime moo xam suuf la moo xam leneen la nga yéene dagan julli mbaa leneen loole nga xam ne moo la tax di tiim boo yéenee joox faratay tiim bi nag moo gën a gàtt mën na ne rek yéene na ma joox faratay tiim bi su ko defee bokk na ci farataam la ngay tiime doon loo xam ne yoon moo la may ndigalul tiim ca la ñuy tiime nag suuf moom moo gën ci lépp lu ñuy tiime waaye nag lépp luy xeetu suuf ni ki xeeti xeer yi nga xam ne loxo doomi aadama soppiwu rek mënees na caa tiim ni ki doju carrière doju dënnu doju kew doj woo xam ne nag loxol doomi aadama soppi na ko moom niki ciment kenn du ci mën a tiimati ay karo it noonu kenn du ci mën a tiim kon yéene ji ak tiime ci loo xam ne yoon moo ko jox ndigalul tiim ca muy yaar ñetteelu mooy teg ba muy teg yaari loxoom ci la muy tiime te mu doon bu jëkk ba ndax dañuy teg loxo yi yaari yoon teg bu jëkk ba nag nga xam ne ci lay masaa kanam gi mooy farata tegum ñaareel bi moom nga xamne ci lay massa loxo yi sunna la bo ne tegg say loxo ci suuf nak lu melni ay bant walay xaxam tak ci yo xamne boko rayale ci sa kanam mu gañ la da ngay fëgg say loxo ndank lola rot nga dora ray sa kanam ak say loxo de sax nañu nga baña tak suuf ba tax fa say loxo bu pënd ba dañ nga dor di ray sa kanam ba say loxo ñentel mooy masa kanam raay kanam ba mu daj muy ñeent juróomeel mooy massa loxo yi li tàmbalee catti baaraam yi ba fa ñu takk montar ba fa ñu takk jara li tax ñu wax loolu mooy boo dee tiim sax da ngay jàll ba ëmb conce yu tuuti waaye la cay farata ci massa loxo yi moom mooy la tàmbalee ba àgg ca fa ñu takk ba fa ñu jara la tàmbalee nag fa ñu takk ba nga ëmb conc la tuuti moom nga masaa ko ci tiim sunna la daañu ko wàññi ci sunna ya kon juróom nga waxagun juróom benneel mooy li ñuy wax alfawru gaaw te jubli ci sësale boo xasee tàmbalee tiim bul ko bàyyi di waxtaan mbaa ngay def leneen nga war a sësale rek tiim bi daal di àgg nga jàll ca la ngay bëgg a def waaye bu tegoon ay loxoom ci la muy tiime masaa tàmbali waxtaan nag mbaa muy faj seneen soxla ba nga yàgg lam defon lepp day yàqu mu wara tambali wat timba ku juróom ben nga ko juróom ñaareel mooy la muy tiimal fekk waxtoom jot fekkee waxtu lolu jotewut du ko ki bu xaron ba takusan des lu neew neew timba mu timba gal far takkusaan jot du tax tim bobu bax mu juróom ñaar juróom ñettel nak moy tim bi seus ci la taxawon muy tim bu de julli la bu tiimee ba àggal daal di julli fa sasa moom dal ko tax di tim rek na ca tiim ba sës juróom-ñett yooyu mooy juróom faratay tiim